moo da yàgg taxaw à la de l'Assemblée nationale ngay wane sa métit di wane sa métit euh, par rapport euh, ak relation bi entre Macky Sall ak ak ak Abdoulaye Wade ji tey à euh, la veille de la présidentielle est-ce que métit boobu deñ na xam nga mosuma wane sama métit diggante Abdoulaye Wade ak ak Macky sama métit bi ma doon kaas ba yàlla gindi ma ci mooy diggante doomu Abdoulaye Wade Karim Meïssa Wade ak Macky parce que na ko aaye ma fande du ma ne sa ay neex na ci ayu Macky Sall lañ duural Karim Wade mais lekk na 4000 milliards ci ayug Macky Sall ci lañ emprisonné Karim Wade ci ayug Macky Sall aussi ci lañu di exilé Karim Wade mu dem au Qatar loolu nag daf ma jàpp ndax Karim sama rakk la nag te man xam naa ne du sàcc parce que ministère yi ñu ko dénkoon ba journaliste yi naan coofe doore roofe cent franc kenn jëliwu ko ci moom cré yi lañ créé créer pour créer tes ennemis créer leen ay problème waaye gisuñ ci moom dara léegi na nga am sa baay muy mag li mat daan kaas man nga am sa soxna mu wàññiku ñu jël la duural la tëj la ñetti at ak ñaari weer exilé la yóbbu la nga dem Qatar loolu moom a metti woon loolu laa doon kaas parce que bu doon sama doomit day metti yow bu doon sa dooma waa sa frère day metti te Ablaye Wade di mag loolu laa doon kaas parce que c'était gisuma woon ne c'est normal parce que même famille libérale nee naa 87 ba 2008 noog Macky ñoo bokk lépp au temps des vaches maigres ba yàlla def Abdoulaye Wade jël pouvoir bi jox ko ci nag ay teraanga ndax fi mu ko jaarale ku fa jaarale ni bëgg nga mu yorum réew def la ministre de l'intérieur bëgg na nga xam li xew ci réew mi def la collectivité local collectivité local mooy département mooy région mooy nationale def la énergie def la premier ministre def la président assemblée nationale macha allah et cetera et cetera donc kooku bëggoon na Macky Sall doon président de la République.